Provide BX6, parfum multi-usage, parfum Bouyangal Diamono, Bayeko Canada, tapis rouge, là où vos rêves deviennent meubles, Balameng C5C VIP, Jail Tussu Loco avec de la haute couture vous offre un mouton, un quartier ndax xam ngeen ni Sénégal am na ñoo xam ne fu ñu dem ñu wër leen ndax xam ngeen lu tax ñooñu dañoo am secret secret bi mooy Provit BX6 waaw BX6 mooy parfum bi yëngal jamono xet gu neex boo xam ni ku mu romb nga bekk ku mu romb nga ne li du mu doon parfum BX6 mi ngi bàyyeekoo Canada formule am dafa révolutionnaire nekk multi-usage adapté à toutes les situations BX6 day jaar fépp fu mu jaar mu xeeñ BX6 parfum bi xew ci jamono BX6 ca bureau ba BX6 artiste booy des marchés, Boudougui duggee ci bus bi ñëppay gëstu kan la parfum multi usage mën nga ko pour sa yaram te it mën nga ko pour chambre pour âge yëpp la de 7 à 77 ans BX6 la nouvelle référence de la parfumerie BX6 waa kër Fallo, Fallou ci HLM fi indi BX6 cantine numéro 5C Djano ak Aretatad Tata 77 513 69 61 wala 77 072 99 99 Chez BX6 ah ça sent trop bon. ñoo ngi jëm ci tabaski bi tapis rouge indi na leen lu dàq ci chambre à coucher suñuy chambre à coucher rek ah lii nag c'est sa majesté lii ci chambre à coucher ëpp na li ngeen doon laaj indil nañ leen ko ci chambre à coucher VIP dernière génération modèle yu mujjee génn modèle yi fi dàq ay design yu moderne ay modèle yo xamni fa am ay lamplettes yu bax, dañ ko incrusté ci fi nga xamni mom modi kat lal bi ah mbok yi xolleet daf ko jox plus d'éclat am nañu it ay modèle VIP ak armoire coulissante yu rafet yu touch yu touch touch touch. am nañu marque Gucci way yow ndekete Gucci moy defar yi. am nañu Chanel way yow ndekete Chanel moy defar yi. ah why Samba yo yep mi ngi nii biir tapis rouge ay salon Louis XIV 11 cuir semi cuir limoi design ya nga Modèle modèle le dellu salon yo da sonorisation ay accessoires ou décoration Les ngi ci tapis rouge dañu nek en promo promo tabaski nag la wax ah après tabaski de yi de yéegaat gade. ay chambre à coucher royal am ay armoire six bâtons àndandoo ay coiffeuse plus matelas offert à 650 000 francs Bataille qui promo bi am nañu modèle king size bu les la king size bi ba noppi jox deux vases ak moquette xam ne mi ngi ko Istanbul à 599 000 francs livraison bi ñolo koy indil ba sa kër te doo fay dara xana ay wax day jeex tapis rouge am Dakar am Mbao am Touba am ñawkat ak jaaykatu ici ordre de se mettre au garde à vous seen général bala mañ se sañse njuga caam yegsi mu indi tissu yoo xam ne ko fekk fenn ci Sénégal bu la xoolee nga xess xamna lu mu lay proposé bu la xoolee nga ñuul xamna lu lay proposé kenn du mom da lay choisir ay accessoires da ngay am embarras du choix ci ay tissu. perle culture fansless dentelle décalée microfine til fourrure til cocaïne xool leen bi rob nak tissu yu bakane tanal sa bu la neex jongama sa basse Getzner baax na. ay super magnum gold cuppalmaan couleur boo amne. am na fi attention ñawkat ak tout ici ordre de se mettre au garde-à-vous ku bëgg lu rafet ku bëgg c'est d'agulga ou pikin tali bu mag après rond-point Dominique bi ci wetu jaaykatu ginaar yi la tànnal tissu bi xew jox style bu xarañ ci haute couture mu ñawal la lu toog wala bu dee da nga bëgg mu ñawal la mu njuga du la de complexe Balaman mañ 5 VIP boo fa duggee da am am l'embarras du choix yi tissu yu bakkanee sur commande personnelle waaw da ngay ñew xol commandé ñu dem li le ko bitim rew indi le ko ci dëkk bu nek ay brodé Autriche ci dessin bu nek ak penjab voile yii am na Pikine tali bu mag marché Zinc rond-point Dominique dend ak jaaykatu ginaar yi numéro téléphone ñu Thiam bala mañse C'est 77 521 41 81 wala 77 552 58 85 ci 77 185 01 94 bala VIP

ça va yaa ngi ci jàmm ah yow da ngaa déggoo tuuti rek. ah bul dégg lu bari de. non non pas bari ah. tuuti rek. yow fo foo jógee Paris. ah. di parti à France. France waaw je viens ah, de France ah jërëjëf jërëjëf yow la ah, doon waaw sant yàlla bu baax. waaw euh, dis-moi euh, où est ton le propriétaire. propriétaire fii jaayu ñuy de ay xar la ñuy jaay mouton.

defal nànk balaa may dee. abu ban nang abu ay abu am na loo sangoo tey. lu xew ab tubaab tubaab. anam tubaab bu xonk cu nee na xar la bëgg. mi ngi ne kan def. noppil bàyyi ma dóor ko marto. ban marto eh boo ko dooree marto mu dee ñu tëj ñu nag. dégg kon noppil rek. ah moom lu ma wax rek ne la ah. abu yow dangaa lewe te sunu tekki nag fii la amee abu ay waay abu am na loo sangoo de tekki nañu tekki la ko ñàkkul saafara boo sangoo waaw na def mi ngi nii bonjour bon voilà je veux un mouton pour la tabaski pour Samagoro moi je suis le propriétaire de bergerie Ker Khadim Rasoul c'est le meilleur bergerie en Afrique euh, Donc, bien. tous mes moutons c'est des moutons qui sont suivis par les médecins les gynécologues et les vétérinaires d'accord quel mouton que tu veux Bon, quel mouton tu me proposes jour tabaski kuy tal quoi Yo, quoi c'est quoi les top.

xam nga lu ma bëgg affaire sëy boobu na tegu ci suuf eh jugalee nga àggale ji añ bi jugal Allô oui mon amour est-ce que mën nañoo gisee tey D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup. je te donne le mouton métis. ah bon, waxal olof ci wax là-bas..! Ouais ouais.. français man mouton métis. il est né à Paris. sa mère est d'origine de de de de de de Belgique. ah de son arrière-grand-père est de Finlande et Suisse. Finlande et Suisse. c'est une Finlandaise. et il n'a pas trop chaud au Sénégal elle a elle a sa grand-mère de eh, naissance est sénégalaise eh, eh. à Kaolack. abu day tax du fay bu du Europe la jóge nga koy wax la Saalum sama baay. ah. on négocie quoi. merci ah waaw baax na yow teel ngaa ñàkk. 500000 500000. oui ñaw non mon mari va me tuer. non non nala ray 500000. dafa cher. combien tu proposes. bon il m'avait dit 50 000 pour toi. bon. 50 000 c'est les moutons africains c'est rek bool ah. Niamour comme un mouton de haria mais le mouton là c'est parce qu'il est né à paris sa mère est d'allemagne grandi en belgique ce n'est pas un mouton comme les moutons comme ça mais baisse un peu quand même combien tu proposes 100 000. Ne laisse pas ce monsieur t'influencer. 100 000 barres, non 100 000, tu fais 200 000 pour toi. 200 000 waa 200 000 c'est bon prix hein ok 200 000 Viens voir..! ok on y va. oh mais il est beau. regarde-moi cette barbichette. c'est tout France. France mère France cousin Europe grand-père hein. Allemagne waaw voilà. Abou Bilal dee ko wax ah, Saalum kii France tiitalu ko Saalum la xamul. attention hey hey hey. ah ne m'attaque pas hein, c'est moi qui vais te manger tu sais. ça c'est ton parent. <laughs> xanaa comme 200000 baax hein. na baax tu payes. ok j'ai 200000. Eh, attends je vais te donner. Abou Bilal man de Abou doy lu 100000 la non <laughs> il y a 200000 hein tu peux compter hein. waaw hey hey hey. il mange ma robe. oui oui oui oui. c'est moi qui vais finir par manger. sa la. Ah, merci beaucoup. Grâce bah, à toi, on va faire une bonne fête de tabac. Quand à merci beaucoup. Je vais venir avec mon mari le chercher. Les Guinées. Ah, on a problème. Les Provide BX6, parfum multi-usage, parfum Bouyangal Diamono, Bayeko Canada, tapis rouge, là où vos rêves deviennent meubles, Balameng C5C VIP, Jail Tussu Nyawal Loco avec de la haute couture vous a offert un mouton, un quartier.